chers internautes salaamaaleykum euh, askanu Sénégal salaamaaleykum waa Tivaouane ngi leen di nuyu bu baax a baax kenn ku si nekk turam ak santam ci euh, le nom c'est Cheikh Mbacké Niang Gaïndé et ci label bu bees bi nga xam ne euh, dañuy dikkaat tuuti ci historique bi du label Gaïndé bi production. Euh, qui a été créé par un certain Cheikh Mbacké un talibé ñu gën ko xam ci Gaïndé Kra Euh, bi ñuy nekk ci préparation wala ci texte label bi bon c' était en 2018 2020 ñu lancé ko bi ñu koy lancé en 2020 ñu ngi ko lancé woon ak benn festival bu ñu tuddee woon FESBAO comme étant un festival du Baol ñu defee ko woon ci benn département c' était à Bambey Diourbel Mbacké trois départements c' était 26 27 28 février ñu àndoon si tamit ak ay artistes yu am doole ay artistes yoo xam ne tamit ñëpp xam nañ ko biir Sénégal sant yàlla bu baax ñu si doon liggéey ñëwaat suñu deuxième événement mu nekkoon euh, FESBAN Dakar festival de la banlieue ñu nekkoon benn festival boo xam ne dañ ko dédié les enfants qui vivaient avec un handicap euh, c'était aussi du au 31 décembre y avait trois activités différentes ci biir événement bi ah parce que déjà ci activités yi ci amoon bokk na ci manage bi parce que on s'est mis en collaboration ak cathédrale ñu jóge si cathédrale aussi amoon na si tamit chaque jour concert boo xam ne moo ñu daan accompagner durant l' activité bi amoon nañ si aussi chaque jour mini foire boo xam ne moom lañ moom la ñu daan accompagner tamit suñu ay activité vraiment. ci loolu aussi bon bi ñu paree ci événement yooyu noonu yëpp lépp loo xam dañ ko si daan am aussi dañ ko daan jël offrir ko les albinos offrir ko tamit ñi nga xam ñoom ñoo di ay handicapé ñi nga xam dañu am problème moteur et cetera et cetera et mais bon d'une manière générale label bi benn structure la boo xam ni nii ñi nga crée sur le nom comme gaynde bi ni ma la ko expliqué tout à l'heure gaynde comme le sceau du Sénégal bi comme de la production de l'artiste la production aussi euh, de votre produit donc c'est de productions à la fois et la production comme ni ngeen koy déggee ni benn sax muy gaynde bi production à part mu nekk benn structure boo xam ne nii day liggéey ci wàllu marketing management communication dans le volet di liggéey aussi marketing management et communication comme commercial aussi dans le volet classique la fois di def réalisation production cinématographique réalisation et production euh, clip vidéo di defaale aussi production tamit audio euh, à la fois aussi comme son nga am sa benn musique nga war ko play ñu ñëw jàppale la si ànd si ak yow ci lu bëri bëri bëri à part ça aussi dañuy def la production et promotion événementielle comme ni ñu ko defee nii nag ici à Tivaouane voilà c'est ça comme l'historique du label d'une manière générale dañ ko gën a xamee ci c'est dans le volet événementiel c'est dans le volet audiovisuel c'est dans le volet aussi production cinématographique et clip vidéo et voilà. Euh, nga dikk ñoom ci initiative festive salam mm. initiative bi lan la ak lan la carrément. waaw l'initiative du festive salaam euh, xel bi ñu ci am déjà bu ñu xoolee Tivaouane xam nañ ni ville historique la benn ville culturelle la ñaar. à la fois aussi euh, ville religieuse la muy ñett mu nga xam ni ni dafa nekk benn dëkk boo xam ni nii daanaka diine gi mi ngi ci aada gi mi ngi ci tamit cosaan gi mi ngi ci mu nekk trois activités trois trois finques yoo xam dafa nekk ci biir gox bi mais bi ñu xoolee ñun li nga xam ne nii moom la suñu structure di liggéey ci dafa jëm ci wàllum euh, maanaam côté côté côté côté production événementielle à la fois ñu nekkat Tivaouane comme dëkk bu sell la te culture bi mi ngi ciy dox te gars yi bëgg nañ ko li si mën def wala li si war a njëkk def mooy fexe ba jàppale si képp koo xam ne ndaw Tiwaawoon nga fexe ba jàppale si képp koo xam tamit yaa ngi nekk biir Tiwaawoon di liggéey ci lu bëree bëri bëri mais li tax ñu indi festive salam bi déjà parce que benn dina bokk li tax ñu war a lancer suñu label parce que euh, gis nga structure boo ko yoree nga ñëw samp ko ci gox bu bees faaw nga am noo xam ne nii moom ngay doxalee bu ko defee waa gox bi ñëpp dinañ xam ne kii kat am na loo xam ne ni pare na pour mën ko liggéey àndandoo ko ak jeunesse bi àndandoo ko aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. festive bi festival fest comme festival tiv comme Tivaouane salam comme la paix S A L 2 A comme la mu nekk benn guddi boo xam ni dañ ko def spécial nuit du prophète ci bu ñu waxee nuit du prophète daanaka naa moo xam ne dafa yaatu wax nañ ñëpp benn tari tarixa yëpp wax nañ ko bàyyiwuñu tijaan bàyyiwuñu xaadir layeen ñaseen murit ñoom ñëpp ku ci nekk rek bàyyiwuñu la lépp loo xam ne nii bëgg nañ ko war a mën a def pour mën la bëggal rek maanaam loolu yokk na li tax ñu gën a samp li nga xam ne moom moo di festive salaam bu ñu jógee ci loolu aussi euh, déjà nekk na benn activité boo xam ne nii Euh, décor bi yaatu na parce que déjà boo boo xoolee ci biir journée bi lu ci bëri bari war na ci mën a am bokk na ci euh, wàcce kaamil yi bokk na ci hommage yi ñu war a rendre boo na ci sargal yi ñu war a def bokk na ci yeneen ak yeneen yoo xam ne daal idéologie wu maanaam loolu lañu am comme comme comme idée pour mën a créer Festive Salam mais pour mën a jàppale ñi nga xam ni nii euh, ñoom ñoo nekk ay doomi Tiwaawoon daan génn Tiwaawoon di dem ci yeneen i dëkk ci yeneen i gox di bégal ay doomi gox yooyu noonu ñun ñu nekk ay doomi Tiwaawoon ñu ne pourquoi pas ñu ñëw samp fi loo xam ne nii ñi nga xam ne ay tàggikat yi yonent bi lañ te ñoom ñooy dem feneen di bégal ñeneen pourquoi pas ñoom ñu indi leen waat leen ci dëkk bi bu ko defee ñoom ñu mën a bégal seen ay doomi dëkk loolu bokk na ci li tax si ñu samp li nga xam ne moom moo di festif salaam dëkk bu sell la duñ fi mën a def benn event su boo xam ne nii après dañ ciy réeroo ak diine gi te boo xoolee ci période bi ñu toll période Ramadan la donc ce serait une obligation ñu jéem a teg loo xam ne nii ñëpp dinañ ko mën a gis ci biir weeru koor gi nit ñi dinañ si mën a génn mën a bégal seen bopp ci biir weeru koor gi ak yeneen ak yeneen ak yeneen voilà. lan la ñu xaar ci bés en de programme ak richesse ak euh, comme ni nga ko waxee ah guddi gi nekk na guddi goo xam ne nii ñun ñëpp maanaam mën nañ ni askan bi ñu ngi koy bàyyi xel Sénégal ñu ngi koy bàyyi xel plus i ici à Tivaouane département de Tivaouane ndax bu ñu xoolee département bi yaatu na yaatuwul. te euh, kilifa yi ñoom ñoo fi nekk te li ñu war a def pour bëggal leen rek dinañ ko def incha allahu bi benn bi si njëkk moom mooy bëgg nañu comme programme bu ñu xëyee la matin maanaam la comme le jour du 30 allah allahu rabbi aux premières heures incha allah ñu fexe wàcce kaamil de 9h à 11h kaamil bi ñi ngi koy jagleel képp koo xam ni doomu Tiwaawan nga benn suñu borom moom la. ñi ngi koy jagleel képp koo xam ne tamit kilifa nga suñu borom moom la ñu ngi la koy jagleel bu baax a baax di jël loolu di la si sànni ñaan. xam nga ak situation actuelle du pays la vie la perturbation vie yeneen ak yeneen alhamdulilah yàlla wis na ci ndox mu sedd ba lépp jàll na si jàmm ak salaam mais yitte bi ñu ci am benn mooy kaamil bi fexe ba maanaam jagleel ko kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Tivaouane te suñu borom moom leen. ñaareel bi mooy euh, le soir incha allahu rabbi à partir de 18h vers 19h jàpp 20h incha allah bëgg nañ defar ay ndogu jël yi yóbbu ko ci daara yi. yóbbu ko ci prison yi incha allah mais tamit yóbbu ko ci hôpitaux yi nga xam ñoom ñoo nekk fii biir Tivaouane la nuit nekk spécial nuit du prophète ah spécial nuit du prophète te boo nee nuit du prophète daanaka wax nga lépp guddi Seydina Mouhamed la Seydina Mouhamed ñu sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk comme niñ ko limee woon ci tarixa yi rek neewuñu benn tarixa lañ ko jagleel wala neewuñu nuit du mouridisme wala neewuñu murid du tijaan ni et cetera et cetera ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk guddi gi donc képp koo xam ni tàggkatu yonent bi nga wala képp koo xam ni nii conférencier nga wala képp koo xam ni nii xammee nañ la ci diine gi donc loolu yiite woon nañ la si nga ñëw ànd ak ñun ci guddi gi am na si nag suñu président d'honneur di ko saluer au passage di saluer aussi ak staff bi au passage aussi muy euh, mam Maodo mam Abdou Abdou mam Abdou aussi moom moo nekk président d'honneur u salaam salam nga xam ni moom na ñuy préparer incha allah artistes yi nga xam ni dinañ leen ci xaar dinañ ñëw incha allah ñu si bëri doon nañu dem rencontrer leen waxtaan ak ñoom surprise yi bëri na ndax bëgg nañu mu nekk décor boo xam ne nii ça sera une première doomu Tivaouane képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Tiwaawan boo ko gisee di ngeen lii c'est la première fois ñu gis ko fi incha allahu rabbi bokk na ci Sam parce que dem nañ ba si moom waxtaan ak moom dafa moom des images mu wax ak ñun aussi li jëm ci événement bi soññu si ba pare orienté ñu si buñ jógee ci Sam aussi dem nañ ci moor mu Sam à part mu Sam gis nañ Ngañ mbaay gis nañ Sidi mbaay ah gis nañu euh, Cheikh Tidiane gis nañu Baye Mbaye doomu Cheikh Tidiane yooyu noonu gis nañu tamit Pape Malick ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii ay tàggkat yi yonent bi lañu ñu nekk fii ci yoonu murit aussi gis nañ fi euh, Baye Lat Abdoulaat gis nañ ko fi gis nañ fi aussi Moustapha Mbaye gis nañ fi ñeneen ak ñeneen ak ay surprise yoo xam ne ñi ngi jógee ci biir yeneen yi dëkk incha allahu rabbi aussi pour joindre li nga xam ne moom moo di Festive Salam am na si artiste boo xam ne nag moom daanaka ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel te ñëpp bëgg nañ ko te yàlla rek tax ndax li muy tàggee Seydina Mohamed kooku ñu ngi koy ciy invité te incha allahu rabbi juste ci négociation lañ nekk ak moom bu ko defee ñu mën a fexe moom nan la mën a ñëwee ci guddi gi incha allah bu ñu jógee ci loolu c'est une obligation que conférence am ci c'est la raison pour laquelle ñu invité ay conférenciers uniquement pour ñu mën a euh, maanaam taaral bis bi benn ñaar pour ñu mën a tamit euh, conscientiser la jeunesse pour ñu mën ñu yeewaat ci lu bëree bëree bëree bëri parce que niveau bi ñu toll nii Sénégal ñëpp xam nañ dafa perturbante parce que li tax ma ni dafa xaw a perturbante mooy quasi euh, ñun nous la jeunesse bon on se focalise à la politique nous la jeunesse à chaque fois ñu ngi bàyyi suñu xel ni que euh, bu ñu état defarul dara ñun duñ defaral suñu bopp dara donc il est temps comprendre nos nos responsabilités c'est la raison pour laquelle aussi ñu mën a toogaat pour mën a conscientiser la jeunesse ñu apporter benn thème mais thème bi si li muy wax mooy l'islam et la paix boo nee la paix daanaka wax nga lépp la paix est avec celui qui suit le droit chemin wasalaamun ala man tabi'al huda donc loolu kese moom lay nekk programme di la pendant nuit waaw heure bi mi war a commencé wax nañ ko tout à l'heure ndax wax nañ ci 9h muy suba wàcc kaame bi mais bu fekkee spectacle bi exactement mi ngi war a commencé juste après euh, gué vers 21h 20h 21h incha allahu rabbi jëm 2h du matin incha allahu rabbi nekk na aussi événement boo xam ni à chaque année dañ koy bëgg a def incha allahu rabbi ci kaw suñu borom bàyyi ñoog suñu kattan ak suñu ru ak suñu sago ndax am nañ yéene di ko def comme loo commencé depuis 2020. nga ñëw ba 2024 yaakaaruma ni war nga ko mën a arrêté daal donc noonu la demee. par rapport ak autorités def ngeen bon par rapport aux autorités le premier magistrat de la commune c'est pas facile de le joindre. monsieur Diop si parce que dem nañ fa gis nañu tamit certes c'est normal parce que période campagne la tombeel ñi ngi nekk ci seen ay occupation mais quoi qu'il en soit on a fait le maximum parce que déjà bind nañ lettre yóbbul ko dem nañ këram def nañ feneen ak feneen ak feneen mais am na ci ay autorités yu bëri yoo xam ne woon dëgg neex yàlla gis nañ leen toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xanaa juste di leen soññaat parce que dëgg la duñ leen soññ parce que xam nañ seen doomu dëkk ñoom ñoo woote xam nañ aussi xam ne moom la seen doomi dëkk yittewoo carrément xanaa juste leen di soññaat rek ñu ñëwaat euh, gën a mën a jàppale seen ay doom ku ci mel ni euh, la ministre Abdou Ndéné Sall ku ci mel ni aussi l'honorable député Yaya Diallo ku ci mel ni euh, Ramon Kota ku ci mel ni Abdoulaye Mbuub ku ci mel ni Maxu ah ku ci mel ni Maam Abdou sëñ Abdou kooku moom daanaka suñ kilifa la parce que déjà ñu ak moom ñoo ànd ci liggéey bi nii ak yeneen ak yeneen ak yeneen autorité yoo xam ne bu ñu limee rek mën nañu mën nañu juum te ça la trop de communication ça tue donc moo tax ñu ñu ñu kii daal mais daal bëri nañu mais képp koo xam ne doxoon nañu ba ci yow ñëw ba ci yow ñu ngi lay rappeler waat ni que ni que l'événement est arrivé donc euh, mu noonu. kon daal les les stars yi ñu gën a nañ leen a xaar le ñoom ñëpp aussi am nañ yéen a ñu ñëw te incha allah ku si nekk confirmé nañu ak yow pour nga mën a ñëw bu soobee yàlla. kon mm-hmm. euh, ko ci séeru laa xam ne. incha allah incha parce que plein air la. te boo tefee sa plein air sa logistique complet ngay indi strade pont lumière sonorisation et cetera et cetera ñu indi ko pour bëgg sargal doomu Tiwaawan xooluñu cherté bi yombul ah dafa xaw a cher mais yooyu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy fexe ba bégal suñu doomu gox ñu xam ne lii kat dañ ko fi samp uniquement pour gox bi te tamit di leen woowaat ah di woowaat surtout la jeunesse ñoom ñu ñëw joindre équipe bi ñu ànd ñu liggéey voilà. la fin. waaw sant yàlla ah. bon parce que déjà préparation bi ça a un peu un staff yi amuñu du ñu tëdd du ñu nelaw xam nga à chaque fois ñu ngi nekk sur le terrain di leen saluer au passage di saluer aussi notre coordonnatrice parce que seen ñaaña Mbaye et Mam Moussa ñoom ñoom ñooy ñoom ñoo yor la coordination ici à Tivaouane di saluer aussi képp koo xam ne yaa ngi nekk ci commission bi rek di ci liggéey mm, du ñu lim parce que bu ñu limee rek dañuy juum te staff bi gis nañ ni dafa màgg dafa yaatu mais un grand merci à un frère à qui donc j'arrivais pas à parler de lui trop longtemps même quoi mais tamit un grand merci à une sœur mën naa citer les deux noms par exemple je peux dire Ñaaña Mbaye et Maguette Niang ces deux personnes la je peux leur citer à part ça ñu ngi lay remercier yow di Zane ah di waxaat askanu Sénégal nag ñëpp ñëw gis nañ si nag ñu bëri ñoo xam ñu ngi bokk ci staff bi du jóge fu sori di ñëw di joindre job bi ak koor gi ñu nekk ça c'est c'est un peu dur mais ñu ngi leen di masawu coono ndax li ñu muñ ba ba yegg si fii tey incha allahu rabi à moins trois jours l'événement est arrivé donc nañ ko gën a gëm ñu jaayante incha allahu rabbi mais di di di di di gërëm sama yaay di gërëm sama yaay di ñaanal sama sëriñ sëñ Abdou Khoudous mu Cheikh Ahmadou Kra mu gën fi yàgg te yàgg lool sax barke alxuraan